man Binta laa tudd Binta Jéeme dëkk parcelle unité dis balaa jógee ñëw ba fii di fi accident bi sa fajar la am ay 6 heures yooyu bi ñu jullee ba pare si la accident bi am accident métti ndax ñaari camion frigoriste yi ñoo doon daw bu baax buñ de buñ dawee bu baax benn bi moo dal si Njaga Njaay bi bu mu dalee si Njaga Njaay bi da koo tànc mu dugg Njaga Njaay bi kanam gi daa dugg apprenti bi moo dee amoon na nag ay blessures yi nekk si biir man foofu jot ma woon xool ñaata nit ñoo fa nekk ndax apprenti bi moo dee sur le coup beneen bi bi mu laalee oto meer mais bi dafa génnoon doon xool ni oto bi laalee kii ni ni ko oto bi laalee mu génn doon xool moom it oto bi fekk ko fa jaar si kawam mais oto bi am oto bi moo amoon ñeneen ñi fa nekkoon ñu blessé ñooñu fii lañ leen tërër si fajar gi si fajar foofu lañ leen tërër mais maire bi moom sur le coup la dee ak waa sagam bi nga xamante ne moom dafa leen doon jàppale moom dañ koo laal moom fii la tëdd ak beneen grand tam fii la tëdd ñoom ñoom sur le coup lañ dee ñoom sur le coup. mais si ñooñu noonu apprenti bi rek mën a ko si Ndiaga Ndiaye bi wala. déedéet apprenti bi kese minicar la mooy minicar yi daw fii ñuy daw ngorwakaam mu Wakaam minicar yi la kaar bi moom dafa kii ba dugg si biir ginnaaw bi dafa nor ba dugg si biir moom chauffeur bi dee na mais ñeneen ñi nekkoon si biir moom dañ leen doon génne pour jéem pour ñu leen sax problème la parce que oto woon. fa nar dugg si biir. oto frigo bi fa la. oto frigo bi nii côté bi nii doon daw di dem nii waaw di daw di dem ñoom ñaari ñaari oto camion la ñoo doon toppante ñu benn bi laal beneen oto bi beneen bi laal oto meer bi ñu génn di ko xool nag si la beneen oto bi ñoo jàpp waa si particulier bi la nekkoon moom da doon liggéey dem moom aéroport lay liggéey da doon liggéey da dafa doon dem doon liggéey aéroport lay liggéey waa nuñ ko laalee beneen oto bi ñoo fekk ko fa beneen oto bi ñoo fekk ko moom moom dee na moom dafa dee si moom dee moom dee bu ñaaw la dee moom man kay loolu mënuñu la ko sax moom deewam moom métti moom oto bi da koo tànc da koo tànc moom dafa deelu sur le coup parce que oto bi dafa dugg kii bi dafa dugg fi oto bi taxawoon fi apprenti bi taxaw kii bi dafa dugg ñu nekkoon si biir sax pour ñu génn leen sax problème problème si mini car bi ak si benen auto bu ndaw bi ak ñi nga xamne ne dañ ñu taxawon fi moy wa sagam bi wa sagam bobu moom. moom danoon xaar oto danoon xaar auto mom day xey danoon xaar auto si fajar mom moom moom si lokkoo la dee. Hmm? saapo ba ñe ñun ba leen wo bi ñuy woote bi ñun ñi di woote dañ leen wo ba sonn fajar gi nonu pour ñu ñew ñom suñu leen woyé xam nga pour ñu ñew dañuy yaakaani ne ñu dañ leen nax ak yooyu. ba ñu ñëwee benn oto moo ñëw xam naa dafa foog ne woon nekkul accident bu grave mais moom mu ñëwee xool fii la xam ne accident bi grave ñi jot ñi nga xam ne dañ leen jotoon tëral côté bee ne mu yóbbu leen ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon fi ñu amoon blessure yi mais ñi nga xam ne dañoo dee ñoom dañ leen fi bàyyi mu yóbbu ñi nga xam ne deewaguñu daal ñu sauvé leen mais ñu ñu jot a yàlla rek moo xam daal kenn xamul ndax dinañ dund wala duñ dund parce que metti na waaw ñoom dañoo yéex a ñëw dañoo yéex a ñëw parce que dañ leen woo ba son bi leen nit ñi di woo boobu fii kenn nekku fi bariwul woon noonu nit ay 6 heures boobu julli nañ ba pare boobu ñu ngi julli dañu julli ba pare cela affaire bi am. benn femme quoi particulier léegi militaire ba mu ko laalee mu génn di xool fan lañ ko laal léegi ci la benn agence euh, sagam génn mu ñum moom tamit ñëw tombé affaire yi di def intervention quoi léegi oto boobu oto frigo bi ci kafe ko fekk foofu ramasse leen voilà mu génn di xool fan leen ko laal par tombeeg coole xaw agence bi di def intervention wala di ko jàppale ci la benn frigo bi ñëw ramasse leen beneen frigo bi moom tu jëlee ko foo ñëw ramasse eh, beneen minicar minicar bi encore mu nekk quatre quatre oto yooyu noonu la fa mais maire sur le sang dafa waaw ci la da ci la dee sur le saa waa sakan bi yéex na de yéex na dee mais mujj na dee waaw avant ça bu du ñëw fekk na mu dee quoi ka bu ñëw amna ben apprendre bu ci ko mu timit apprendre mu timit ci la dee tak euh, ki bi da ko naj ci ginnaaw ko jëlee naj ko quoi wa ci la gañ tank bi ci la dagg bi ak bopp bi toj timit encore mu dee ci la saasi client mais am na blessé nag am na blessé yu bëri moom te métti na tamit noo xaw ma ñaata la mais bëri na trop waxaw na bëri parce que boobu am na am na jigéen am nay góor waaw. oto ñu ngi jógee ko xam naa ne kii tóngoor yi lay doon quoi oto tóngoor yi lay doon mooy kii fajari oto fajari yooyu quoi. Euh, somme bi yëpp li fi jot a faatu ñu ne quatre personne la moom moo dee si li ñu jot a xam le action bi. kii def loolu mais oto oto jën la mooy comme oto jën bii moo def moo def même action bi quoi mais dafa jugee si euh, côté bi ma ma taxawee di dem di dem même voir bi tombé benn oto boo xamante ni camion la mais dafa nekkoon ci digg bi quoi léegi camion ba mu ñëwee camion camion jën ba mu ñëwee camion bi ci kanamam la mbëkk ba mu ko mbëkkee camion boobu puus fekk benn maire boo xam dafa yoroon comme particulier taxawoon noonu si euh, si arrêt bi laal dafa laal euh, rétroviseur maire bi wàcc di xool rétroviseur ba xam yàq na ko wala yàq ko mais camion bi mu ko oto boobu moom laal la rétroviseur maire bi camion boobu moo ñëw fekkaat fa maire bi ñëw dóor ko mu daanu mu jéggi si koom léegi agence xamante ne ba action bi amee urgent moom moo njëkkoon ko mu xoolee mu yàqule bëriwul moo waral cool yi ba mu fa fekkee maire ba mu ko mbëkkee ba maire bi daanu oto ak moo ko agence bi yëpp la boole même coup rey leen comprendre fekkaat beneen minicar minicar bi moom fii laa ko fekk moom minicar bi moom sama fekk naa ko fi léegi sa apprenti euh, bi lay njëkk rey moom fekkaat fa yeneen deux personnes euh, non yeneen beneen une personne rey ko euh, ak ak deux personnes yi mu njëkk rey muy quatre personnes mais